Wow, quelle classe Wa fi mom rafet na di li nak lañuy wax paradis sur terre deug deug xaw won ni lu mel ni amna fi vraiment du nouveau à Dakar Talen ak jam ci bas imo yéen sama mbokki tukkikat yi yeen sama mbokki émigré yi moo xam nga ko, biti réew bëgg fo passer ce séjour à Dakar Yeen ni bëgg passer sen temps pour vider vos esprits Yeen ni nga xamante vous êtes tout le temps en activité yeen ni di wo fu ngeen noppalo. Yeen ni bëgg a fêter seeni anniversaire ak ñi am programme séminaire Talen ak jam ci résidence Basit Imo da ngeen bëgg fu chic fu ngeen passer sen temps jaratul dem ba sali, ni nga paru wala Rose suite yi nu des appartements meublés ay studio ay mini studio ay chambres simples, très bien meublé et bien climatisé chambre et salle de bain ak cuisine incorporée Basit Imo xoolal suñu studio yi chambre salle de bain amna itam salon pour passer son temps xoolal suñu suite mini studio yi mu di résidence meublée bu discret am sutura lol, équipe bu dynamique et professionnelle ba un dañu lay défal accueil bu chaleureux site IMO, moom mën nañu jël ay permanent dañuy jël ku bëgg passer ay séjour am mën nañu jël ku fa bëgg def 24 quatre heures waaye itam mën nañu jël ku fa bëgg def 3 heures de temps voire même 1 heure maa la ko wax résidence bi dañu koo defar pour kenn ku ci nekk mën cee gis sa bopp fexe ba li ngeen di yittewoo du ngeen ko dem wuti feneen ndax am nañu ko fii ci Basit Imo kaay ma wax la boo fa bëggee dem nooy def adresse baa ngi fii ci cité Soprime ca boori croisement 22 bu Parcelles Assainies bu loolu doyul mën ngeen a jokkoo ak sunu ay agent ci 77 698 95 95 ou appelez le 77 808 20 81. Bienvenue à Dakar, résidence Bassit Imo, file de Kneré. li tiktok bi aj lu baax yéen waa tiktok <laughs> dama leen ma leen di waxaat mooy tiktok bi yéen ñi ci nekk na ngeen ma xaar képp ku ci am aajo ñi nga xamante ni seen far yi dañoo xuloo ak ñoom ñi nga xamante ni seen sëy yaa ngi yëngu a tukki na heure xam nag sëriñ si heures la ma jàngal sëriñ si ndax man damaa yàlla man sëriñ tiktok bokkuma ci ma ngi ak baaj sama bëkk néeg nii moo yor affaire yi lu ngeen demandé rek ma faj xalaatati dara sama kanam gii ku ko ci xool ci tiktok doo faatoo tiktok maa la ko wax pare nga yow. carrément lancé. loo dem nii dem waaye pare ko ma nga yóbbu ko doo am nga rek waaw baax na kon ba beneen waaye li ma wax noonu doy na. jur la fi la war a juree ngay naan sàngara yow daal guddi bu jotee bu nit ñi tëddee yaa ngi ci bit bu nit ñi ne nii nag nga tëdd di kara nga ak ngaa ngaa waxuma la dara waaye yaa ngi jóge sa frontière ñëw suñu frontière su ma amuloon lu may seet billaay dama lay delloo sa frontière way lii li mu doon nii bii façon moom banati la eh eh eh laa ya, ilaaha illallah kii yàlla wayin man damay bëgg a jommem damay bëgg a waaroon bii li mu doon waaye yow lii ñoo may yeewe ah yow yow la kan waaye yow ma lay laaj yow la kan da ngay fekk nit ki dina la wóor. Eh, yow li ma nuyoo ci dëkk bi bépp. waaw ah. waa biir fii xafaat sax yëg nañ sama nuyoo bi. yow ngay nelaw rek. waaw léegi nelaw rek. ana sëñ bi. waruma nelaw ban sëriñ. seen bi ana ana bi sa sëriñ bi. sëriñ bi waaw. moom nga may yeewee nii. waaw. yow mu fekk ma ma toog sama di jàpp sama njàpp ah. sama néeg a ngi ci tëdd fii. dégguma nga ni nga ni. néeg la la sama néeg laa bàyyi ñëw tëdd fii ci sama. njàmm mooy ki jàmm. bu leer na. liñ ma doon wax lépp lépp lépp lépp lépp ndekete dëgg la. tiktok. waaw Serigne tiktok. tiktok. génnal boo génnee di nga xam lu mu doon. ah yéen ku leen neex rek ngeen dugal ci kër gi golo gu ñëw ngeen dugal ko ci kër. seetal ah, ah? lii mën. seetal seetal ah, eh, yow lu la tax a tàng nii yow it nag. xam nga lu ma tax a tàng. ah xanaa doo ma kii de. melokaan yi ma fekk ci biir kër gi. waaw ñu ne deetawaay yow ndekete néeg bi da ko koo suul yee. Ah, calme yow. boo defee nang ma wax la sabab bi ma xam naa di nga déggoo man leen rek laa lay jéggalu mooy ni ma ko dugal ji néeg bi te waxuma la. waaye kii day jirim ndeyam dee baayam dee ah muy prématuré boo xamante ni ma foree ko fee di wax lu ak ngir ah, yàlla kilifa ah, moom mi waaw dama la duggul sax te de eh. mer gàddu laa teg ko fii ci wàlla fii eh, nga ni xam naa ne xam naa ne seen yow laa yow defal nga yàlla non lu may noppee. koo wax kii noppee looloo tax nag man xam naa ne amoo problème boo yëgee loolu. waaye maa ngi jégalu yéex a wax. massa massa massa def nga lu rafet. massa massa massa dimbali leen ma ngay massa mel ni ku feebar. kenn yow laa waxal. yow dafa ndàkk bala ngay daal lii dama koy réglé wu. yow nga ne kuy jëriñ. nekk jëriñ ba kii dem rek. eh dëgg dañ ko fi daan bàcc la kan ah. eh, ma jirim ah eh jirim te du ay abalak yi man fii dëkk nga luye ma ma di ci sama ñàkk ah. sàccu ma ko rambaaju ko nga ni day taxaw bi jirim di rey samay para ah. yow samay para xam nga leen ba li di rey gis nga gis nga li nga li def di rey papa yi jàmbur te deewul ma yow wuy ma eh, dama lay wax gàtt ko gudd gu gàtt ko gudd kee ñàkk jom waaw ah, nag moom ku ñàkk a jom ni yow musuma koo gis ca waaw man yow bu mel ni yow mas na koo gis ah, yow saxlu yow tiriyaare nga ah, ma def rek yow war nga naa suulee yow kër gu ma ne ah bu ma fuluyee fexe ba génn ma fii nii dangaa làqatu ba ma jël kër gi nga door di tëllëg say xonk nu may def ak nu may def nu may def yow eh, eh, eh, léegi yow yaa ngi wax ak beneen problème ñëwul ah beneen ñëw na kay sama portable ban portable barke Seydina Mouhamed boo génnewul sama portable nan laa si di mooy xanaa da ngaa ndof ndof gu bees nag léegi kan moo dof dofu bees waaye yow xefe xippi nga bëgg ma fee jël portable père kii sala la sa ah? xarit la xaw ma ko de barke Seydina nu mu nu mu laa portable nu maa tëdd fii teg sama portable. nu mu mel bu ruus la nga def. booba ko sàcc maa nga dem. booba ko sàcc. boo jàppee booba bàyyi sa sàcc. boo ko jàppul bàyyi sa sàcc booba ko sàcc. boo ma dóoree dootoo ko def de. boo may arama la yàlla. dama lay gaañ boo may arama yow mi laa bëggoon yóotu baare la boole la. sama porte. ña ñeme nga ma dóore dóore. ñawal ñawal ñawal. sama kër gi tati mamal xoolal war ngeen ko teg mbaf la géwél yaa yow dama ñëw waa ñibbi kal ma yow dama la wax sa sa dama li jël ci sama li duma ko am dama li jël dama xuli ba kii dem nga dem ma ko li jël waaw yow day da kala nak kat yow ngay tapé dugal fi dama sa territoire dama Ah, ah, ah, mi ngi noonu aj lu bon li ci na bi aj <laughs> nag commentaire yi maa ngi dégg ngeen wax waaye nag yéen saa damay dugg xalwa moo tax waaye nag li ma di waxaat mooy tiktok bi yéen ñi ci nekk ñëpp da ma xaar képp ku ci am aajo ñi nga xamante ni seen far yi dañoo ñoom ñi nga xamante ni seen sëy yaa ngi yëngu ñi bëgg a tukki ñi bëgg am na heure boo xam nag sëriñ si ñu ngi may demandé waaye ñoom 23 heures la ma jàngal sëriñ si ndax man damaa yàlla man sëriñ tiktok bokkuma ma ngi ak baaj sama bëgg neega yi lu ngeen demandé rek ma kii ku ko ci xool ci TikTok doo faatoo TikTok maa la ko wax wàcc pare nga yow. carrément lancé. dem dem nii dem waaye pareegu nga yóbbu ko non a am nga rek waaw baax kon ba beneen waaye li ma wax noonu doy na.